ne gadd jigéen ñi toog fii góor ñi toog fi moo tax ma di ko seet daaw ba yàgg ma wolofal ko ni maa ngi woy ci jàmm iya ndar fii la Maodo sampoon kër taal fi diine jur na fi gor gor yu baax yi fekki ko ñoo di soppe mbay taxaw chaque semaine ñu bokk fa teew daayiray xalifa di ñëw loolu Maodo gis na ko at mu nekk ngeen taxaw tànt fii saxaar yi di ñëw at mu nekk ngeen di taxaw tànt fii saxaar yi di ñëw at mu nekk ngeen di taxaw tànt fii saxaar yi di ñëw baatu yàlla jolli ca kaw loolu Maodo yëkk na ko maa ngi woy ci jàmm ci yàlla fi la Maodo sampoon kër taal fi diine jur na fi gor gor yu baax yi tekki ko moo di soppe mbay yi taxaw par ngeen bokk fa teew daayira yi xalifa di ñëw loolu Maodo gis na ko at mu nekk ngeen di taxaw tant fi saxaar yi di ñëw at mu nekk ngeen di fi saxaar yi di ñëw baatu yàlla jolli ca kaw loolu mbay ci gis na ko xeex bu nekk xeexe nañu leen jëw bu nekk jëw nañu leen bañ gu nekk bañ nañu leen ngeen taxaw tàngamlu ko tool bu baax nga seen ca sawaay jaajëfal ko lii du lu aay toolu mbay si yéen a ko béy fii ci ndar mu seede ko ànd ngeen siyaar ko bisam nee na leen keroog ca këram baaba kër ëllëg lu mu am soppe ndar ñu bokk ko waate waa wonay këru baay wante waa ndaray këru yaay kon tiyaara bii du lu aay loolu mbay si gis na ko daa yaram yu jàpp leleen seen jigéen ñi wéet si li leen fóori leeral ko loolu mbay si gis na ko àndandoo gi neex na fa mbay àndandoo gi neex na fa mbay àndandoo gi neex na fa mbay àndandoo gi neex na fa mbay àndandoo gi neex na fa mbay àndandoo gi neex na fa mbay dëppaloo gi neex na fa mbay yal na yàlla xoole nu mbay yal na xoole nu mbay sunu ngëm nu yóbbu ko góor ñi ak jigéen jaxasoo foofa jam xanaa xam loo makka ñépp fay jaxasoo jëkkiwul ci waaw na waaw dootu gëj waaw tey ku ma